أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokki jullit yi comme ni ko baaxoo di def mooy di fàttalante ci téere borom bi tabaraka wa taala ci koor gi yépp ñoo ngi doon tafsir diggante tisbaar ba tàkkusaan yàlla def na koor gi jeex na ñuy tàmbali waat tey programme timis gee bi bi iznillahi tabaraka wa taala ñu toll ba tey ci suura al an'am ñuy jël tey ñaari aaya aaya 136 aaya 137 aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal ñetti mbir ñetti mbir yooyu bi ci jiitu mooy xurmatul ibda fi diin wa tashri araamal gi sunu borom subhanahu wa taala araamal ci ñun sos ci diine wala yoonal ci diine loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala yoonalu ko wala yonent bi yoonalu ko wala lépp loo xam ne dafay dànqonte ak sharia te sunu borom subhanahu wa taala dénk ko yonent bi pour yonent bi jàngal ñu ko mbokk yi loolu tey danañ fekk aaya yi nekk sunu kanam di ko dàq mooy yoonal ci diine yàlla rek moo ko moom ak yonentam amma doomu aadama amul lenn lu mu war a sos ci diine ji lu bees wala lu dëppook ay bëgg-bëggam wala loo xam ne moom moo yaakaar ne lii ci xelam baax na rek mu daal di koy dugal mardi passé dama amoon benn tudd fële caaroy asir yàlla def ma xaw a yéex a dem ma ñëw fekk ñu ngi tudd xale bi fekk naa ci waxtaan wa tuuti ma fekk fa kenn muy waxtaan ci wàllu diine ma toog di déglu ci biir waxam mu am ay bidaa yu mu saxal bi mu daanelee ma jël kàddu ne yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ku sos ci diine ku ci dugal lu ci bokkul sos ci diine nag mooy nga indi loo xam ne yonent bi xamu ko yonent bi jàngalewu ko ci biir leeral gi ñuy leeral ñu dugg ci yëf yi yàgg torop ba ñu dugg ci julli fay faat misaal bu ma doon joxe ma tuddi tey Sénégal ni ñuy jullee julli fay faat ci àjjuma bu mujj ci weeru koor te yàlla yoonalu ko yàlla jàngalu ko jàngalewu ko ki ma fekkoon muy def daal mu daal may dagg ci saasi interpellé ma ne ma lu tax ngay dàq julli fay faat te ci diine la bokk ndax moom mook mook julli salaatu tasbih benn lañu bon comme laaj na ma laaj bi ci biir nit ñi ma ni ko léegi nag may may ma tontu tontu bi moo doon nii laa tëddee woon julli tisbaar ñaata rakka la mu ne ma ñaari rakk alxuraan wax na ko wala alxuraan waxu ko waaw julli tàkkusaan alxuraan wax na ko wala waxu ko waaw julli timis ba julliy jeex julliy juróom ma ne ko yàlla indi na ko yonent ni indi na ko mu ne waaw ma ne ko julli baaw naan tolli taw sunna saxal na ko walla waaw jullee néew sunna saxal na ko walla waaw julli julli lan sa- salaatu tasbih ak julli lan xusuuf buñ jàppee jant walla weer ma ne ko yii ma wax yépp alquran ak sunna saxal nañ ko amma julli fay faan nag alquran waxu nekkul ci sunna yonent bi nekkul ci ngirum Malik nekkul ci Shafi nekkul ci Abu Hanifa nekkul ci Ahmad ma ne ko léegi foofu fu ñu ko jële nekkul ci Bukhari nekkul ci Muslim nekkul ci Abu Dawud nekkul ci Tirmidhi nekkul ci Ibni Maaja fu ñu jële fu ñu ko jëlee ma ne ko boobu moom dàqu na kon boobu amoo loo ci wax ndax amul ci téere yi kon yéen waa Sénégal fu ngeen ko jële kon loolu mooy sos ci diine mooy loo xam ne boo ubbee téere diine yëpp doo fekk yàlla wax ko doo fekk yonent wax ko waaye ay nit rek ñoo toog xalaat rek daal di koy indi rek daal di ko ci ne tëmbal ci diine bi loolu nag la ñu yàlla di tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam def cee wax ay textes yu leer man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad sunu diina ji képp ku ci dugal lu ci bokkul yàlla da koy lem delloo la bokku ci wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hada ma laysa min fa huwa rad képp ku sos ci diina ji loo xam ne bokk ci yàlla daf la koy delloo kon dafa araam ab jullit muy sos ci diine dafa araam di dugal ci diine ji loo xam ne yàlla indiwu ko yonent bi indiwu ko ndax loolu tuumaal yàlla la tuumaal yonent ki indi ci diine ji loo xam ne yonent indiwu ko dafa tuumaal yonent bi te yonent bi yàlla bi mu ko yónnee lépp li ko yàlla joxoon jottali na ko ba keroog ca hajjatul wada yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga taxaw ca naaj bu tàng ba naan ala hal ballaxtu ndax jotal naa saaba yi ne naam mu ne allahuma fashhad yàlla ko duut baaraam moom yonent bi ne ko yaa ayyuha rasul balligh bima unzila ilayka fa in lam tafaal fa ma ballaghta risalat allah jottali li ma la jox moo tax li gën a garaaw mooy léeg-léeg nga dégg lenn ci ay tarixa ñu naan ñun li ñu yor yonent bi moo ñu ko nëbbal loolu dafa dàqonteeg aaya bi ñun sunu sëriñ li mu ñu indil dañ ñu ko nëbbal loolu dafa dàqonteeg yaa ya rasul balligh bi ma unzila ilayk yow yonent jottali li la yàlla yónni soo ko deful kon dey la la yàlla yónni defoo ko fama ballarta leer na kon mbokki jullit yi sos ci diine dañ ñu ko tere la feeñ ak la nëbb walla nga ci yoonal loo xam ne dafa dàqonte ak sharia yàlla te yoonal gi gis ngeen nim bare lu nekk yéen a ngi dégg ay nit di wax ñii dañuy bàyyiloo seeni ndongo julli ñii di bàyyiloo seeni ndongo woor ñii di tere ku aji mag ñii di tere ku jàngal Qur'an ñii ku nekk rek woote yoo xamante ne kenn xamul fu mu jógeek fu mu bàyyeekoo daanaka boo koy xool sax di ko càmbar danga naan lii dafa ñëw pour opposer yoonu l'islam dafa opposer sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ñaareel ما ينظره الجهال اليوم من النذور لأولياء وإعطائهم شيئا من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين زينه الشيطان للجهال المسلمين أنا بوقت لي جانغ تاي لين ساي nga gis ñen ñuy tuddo l'islam reer ba yaqku di nëzër ay nëzër yoo xam ne seeni kilifa lañ koy nësëral ak di leen jox lenn ci ay jur walla mbay walla ay garab di leen ko sampal di leen ko saxal nee na loolu nag daa bokk ci jëfu bokkaalekat yi wa min amalil mushrikin bokkaalekat yi ñoo daan def loolu jël seeni gàtt seeni jur yóbbu ko ci xërëm yi di ko rey ci bàmmeel yi di leen ko reyal wala ci xërëm yi di leen ko reyal wala la gën a baax ci seeni tool ñu koy jagleel xërëm yi wala la gën a baax ca njur ma ci gàtt ya ñu koy jagleel xërëm yi wala ñu koy séddale naan lii nangam la lii nangam la lii fii la bokk lii loolu mbokk jullit yi diine ji di lislaam def ñu koy tere moo tax ab jullit wala muy def dara ci diine dafa war a laaj wala yahillu lahu an yafala filan xata yaalamu hukma allahi fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun yàlla nee na bu ngeen xamul laaj leen waaye li ëpp ci ñun tey ci suñ diine dañuy fekk gis nasaraan yi di def ñu def dañuy gis bokkaalekat yi di def ñu def dañuy gis ñi def xërëm sax di def ñu def dañuy gis yahud def ñu def nasaraan yi def ñu def te loolu ñun lan lañ koy laayee mooy lii dafa rafet point wala lii dara nekku ci waaw ndeysaan dëj bu ma demoon démb barki démb ñu ne bañ jógee armeel ya ndeysaan dem dëj suba ba ngoon doo gis sunna doo gis sunna doo gis farata lépp luñ defal néew bi bi daal jóge ca armeel ya ñëw ci dëkk bi ñu ne ñuy jàng alxuraan nañ dem toog fee ñeneen ñi sikkar nañ dem jàkka ja ñi sikkar nag sikkar boo xam ne dañ ci am ndigal sikkaru sàngam ñu tudd ñu tudd baat bi ñu ne sikkaru sàngam ku ci am ndigal demal ca jàkka ja ngeen sikkaral ko néew bi ñi ne ñeneen ñi nag yéen ñi nga xam ne nag amu leen ndigal ci sikkar soosu ñëw leen kaamil baa ngi nii ngeen jàng loolu ban sunna la loolu fan lañ ko bind ku mokkal nangam demal ca jàkka ja nga def ko yéen ñi ci am ndigal mën a ana ana ana lan ci diine la jullit di def loo xam ne amu ci ndigal benn waaye mus na ma wax bi ma gënee nekk xale yow jël nga wird ma ne ko yàgg na mu ne ci koo ko jële ma ne ko ci yàlla mu ne ah yow da ngay font rek ma ne ko fontuma de man alxuraan moo ma jox wird ma jël ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu loolu mooy wird wi yéen ñi gëm yàlla julli leen ci yonante bi mu ngo looy xaar ndigal yàlla jox la ndigal nga naan da nga koy jëli ci keneen xam nga erreur a ngoog inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala man ala nabi yemul foofu de mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla bu leen toog sallu allahu akbar moo tax dëgg dëgg dëgg ñàkk jàng musiba la bokk na ci alal jullit yi tey mooy ñàkk jàng xoolal koo xam ne danaan man de sikk zikr bi du ma ko def lu dul ñu jox ma ci ndigal kan mooy joxe ndigal du yàlla yàlla bu ne yaa ayyuha allazina amanu sallu yow nga ne balaa ngay julli ci yonente bi nga xaar ñu jox la ndigal te yàlla ne la def ko dëgg-dëgg mooy yow jàngoo dëgg-dëgg yow déggoo sa diine dëgg-dëgg yow xoolaatal sa bopp kon li nga xam ne tey ñi réer ñi ñu ngi koy def ci diine ci ay nëzër xam ngeen nëzër di ko nëzëral lil awliya ci ñooñu naan ay wali yu lañ ak di leen jox dara ci seeni gàtt seeni jur wal xars ak mbay mi wa shajar ak garab yi nee na huwa min amalil mushrikina loolu ci jëfi bokkaalekat la bokkaalekat yi nga xam ne seytaane moo leen taaralal jëf yooyu seytaane tey moo ñëw ci jullit ñi taaralal leen xam nga seytaan yi tax bidaa garaaw seytaane xam na ne mënta bàyyiloo nit ñi julli mënta bàyyiloo nit ñi woor mënta bàyyiloo nit ñi jaamu yàlla seytaane xam na mën na mënu ko waaye léegi lu mu def mooy day ñëw indi la jaamu yàlla boo xam ne yàlla santu la ko julli goo xam ne yàlla santu la ko waaw loolu mooy bidaa moo tax bidaa garaaw au lieu nga jaamu yàlla ni la ko yàlla sante déedéet daf lay wax ne mën ngaa def nangam loolu mën na remplacer sax lii su ko defee nga sonn nga nekk ci bidaa boobu di sonn te doo kenn du la fay yowmal qiyaama ndax bépp jaamu yàlla boo jaamu te yàlla santu la ko yàlla du la ko fay kon képp kuy jaamu yàlla ci ñun na fexe ni muy jaamoo yàlla mu defe ko ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon ñetteel bi mooy xurmatu qatlu nafs li ay sabab kaan daa araam ci sunu diine jii di lislaam rey bakkan rey nit li ay sabab nag ci mboolem sabab yi da nga koo dóor yat da nga koo dóor pistolet da nga ko jam paak képp ku rey nit ëllëg di nga lay ak borom bi tabaraka wa taala ci façon reyin gi ak goo ko mën a rey borom téere bi mu ngi ciy joxe misaal mu ne kat tax di di nasal lu mel ne planning familial du lenn lu dul rey nit ak avortement médicalisé bi ngeen di dégg ne danañ ko defi yépp rey bakkan la li yàlla namm li yàlla ne lii day am nit ku ëmb ñu tuur biir bi wala ñu provoqué biir bi daal di koy yàq loolu yëpp rey nit la ndax biir boobu bu ñu ko bàyyiwoon lu muy nekk nit lay nekk doomu aadama lay nekk daa araam tey planning familial dañ ko organi dañ ko dañ ko dañ ko forcé ummatu muhammad dañ ko forcé xeetu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam pour lan pour balaa ñuy bari ndax xam nañ ne xeet boo xam ne dañoo bëri kenn du leen mën a noot ñu ñëw tudde ko ay tur organisation planification fekk du dara lu dul tere jigéen ñi am doom kese ak yàq dëkk bi di planning loo di planning loo bay planning loo ay mademoiselle da ngay dem croix bleu fekk fa ram madame ram mademoiselle mademoiselle lu muy doyee planning ah tey sax ci ñiy dund sunna da ngay gis ay sëy yu tas lu ko tas planning familial léeg-léeg ku jigéen ki ne dama koy def ku góor ki bañ léeg-léeg ku góor ki imposé ku jigéen ki ne ko da nga koy def par force mu nekk ay problèmes yoo xam ne yahuud yi ak nasaraan yi ñoo ko xee forcé xeet wi tey ba julli di gëm ko daanaka foo dem ci biir dëkk bi panneau publicité yaa ngi ñu taf hôpital boo dem ñu ngi koy def ay façon façon yu baree baree baree bari ay façon façon planning bu jigéen ëmbee au lieu ñu bàyyi ko mu am doom dañ koy césarienne xotti biir bi génne doom ji xam nga ku ñu xotti sa biir benn yoon ñaar du ñett mooy yow ñetti doom ngay am foofu la lañ lay yemale parce que dañ laan la opéré nañ la ñetti yoon ñenn ñi dañuy wëlbati seen bëritu njurukaay njurukaay ñaar doom nga am nga ni man am naa juróom-ñaar ñu ne yow looy rappi rappi looy daw koy kursal daal di wëlbati sa bëritu njurukaay ñenn ñi dañ leen tàggu ñenn ñi kenn du leen tàggu ah ay comprimé yu yàq biir yu kenn xamul tey moom ci suñu biir dëkk bi ba pare nag li gën a doy waar mooy mettital mettital njur gi mettit dañ koy mettital ba jigéen su ëmbee pour mu am doom soo amee doom ba pare boo ko nee ëmbaat mu ne yàlla tere ni ma sonne bii doy na sëkk parce que ñoom ñoo koy def ñoo lay jox ay comprimé ñoo lay jox ay garab yoo xam ne feeg yaa ngi koy naan doo normal ci feebar ngay dëkk bi nga tàmbalee bi nga commencé ëmb ba keroog ngay am doom yooyu yëpp mbokk yi ay xeet planning la yoo xam ne ak bañ a sëyloo nit ñi bañ a encouragé sabab yi ci sëy góor ak jigéen njaaloo bi takarnaase bu kenn kenn ut jabar tasaare ay protect ah soirée yi ngeen di gis yëpp li ci ëpp dañ fay maye protect école yi lu ci ëpp dañuy maye protect ak daje yi nga xam ne góor yi ak jigéen ñi dañuy daje loolu yëpp lu ko waral pour yàq ummatu sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam pour xeet wi ni ñu war a mel ci mbaax am qualité am ay valeur am ay jikko ah yooyu yëpp na yàqu kon lenn la tey ci loo xam ne suñu diine mu ngi ñu koy jàngal di ñu xamal ne tey xeet wi dañ leen a forcé lii di planning familial jaarale ko ci ay nguur nguur yoo xam ne ay nguuru ceddo la ñuy rey nit nit ñi di rey nit ñi di planning te loolu yëpp koo wax mu ne la man musuma rey nit te li ëpp ci nit ñi jigéen ñi tey kenn mënta waat ne man reyuma nit ndax ki war a juddu nga tere koo juddu loo ko def kon mbokki jullit yi ñaari aaye yooyu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala moom la ñuy jël ma bàyyi incha allah seex bi mu jàngal ñu aaye yi ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون barakallahu fiik jazakumullahu xayran yal na leen yàlla fayal aw yiw sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaalu dañul di ñu leeralal jëfi bokkaalekat yooyu nga xam ne ñooy bokkaale suñu borom subhanahu wa taala ci seeni xërëm sunu borom xamal ñu ne ñoom kat dañuy sos ci diine ji di yoonal ay yoon yoo xam ne amuñ ca benn xam-xam amuñ ca benn njub nekkul ci téere bi di quraan nekkul ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunu borom ne wa jaalu lillahi defal nañ yàlla wa jaalu defal nañ kan lillahi yàlla mimma zaraa ca la mu bind moom la nga xam ne moom yàlla moom moo ko sàkk mimma xalaq mbir yoo xam ne yàlla ko sàkk moo ko amal moo ko bind ñoom lan lañ defal yàlla ci mbir yooyu min al xars ca mbay ma wal an'am ak jur ya nasiban ñu daal di xaaj ne lii yàllaa ko moom lii sàmbaa ko moom lii dembaa ko moom xazzan wa qadran muayyanan waaw min alxars alxars kullama yaxrusu lahu l ard mooy lépp loo xam ne dañ koy génne ci suuf di ko mbay min azar ñu koy bay loolu mooy min alxars wal an'am al bil al ibil wal baqara wal xanam mooy gëléem wala nag wala ay gàtt moo xam béy la moo xam xar la loolu nag doomu aadama yi tey dañ koo xaaj ca digg ba daal di ci utal yàlla cër daat ci utal xërëm yi cër lii yàllaa ko moom lii yàlla moomu ko xërëm yee ko moom xar mu mel nii xar mu mel loolu tey loolu loolu loolu tey mbokk yi moo ngi Sénégal ñaata kër ngeen di dugg ngeen fekk fa xar mu weex tal kenn du ko rey ñaata ci sunu kër yi laa wax ngeen di fekk xarum tàpp mu ngand mu duuf njool ca kaw kenn du ko laal boo waxee ñu ne lan la
xaru sax ñu ne xaru sax xaru sarax la xar bi ci kër gi rek lay nekk noonu la amee ci jur yëpp am na nag yoo xam ne kenn du ko laal am na xar yoo xam ne kenn du leen laal am na ginaar yuñ dul laal noonu la amee ca tool ya loo xam ne ci tool bi kenn du ko laal waaw loolu kan moo ko wax fan lañ ko jëlee kan moo ko séddale fan la yàlla wax ci alquran su ngeen bayee tool maa moom nangam su tool bi ñoree fan la yàlla wax ne bu ngeen yaree ay xar xar mu sàngam ak xarum sàngam benn melo bi wala benn nangam bi man yàlla maa ko moom leneen li xërëm yee ko moom loolu yéeféer yi doon def démb daanaka loolu la jullit tey jaala ulaika al aadiluuna bi rabbihim ñooñu nga xam ne ay bokkaalekat lañ ci seen boroom def nañ mimma xalaqa min alzarci wal an'am nasiban ay qisman xool nañ jur yi la leen ca neex ñu ne lii ñun ñoo ko moom ñu xool la ca gën a bon la gën a alku ñu ne lii yàllaa ko moom suñ ñëwee ci tool yi tamit ñu xool la gën a baax ñu askanale ko seen bopp yenn saa yi nga ñëw ci tool nga gis tool bi ñu détaché ko ay détail ay ay ay ay ay détail def ci sax ay xàmmekaay fii ñu takk fi sagar bu xonq fii ñu takk fi sagar bu ñuul fii ñu takk fi sagar bu weex waaw ndeysaan lii la yàlla moom lii la xërëm bi moom lii la sàmba moom lii la demba moom loolu mbokk yi bokkaalekat yi doon def démb tey julli ñi dañ leen cee roy leen ci ay jullit yu réer kama jaala lil aliha allati yuallihunaha ma allahi subhanahu wa taala nasib nañu sàkkale yàlla tabaraka wa taala ma leen bind ñu utal ko lenn ca mbay ma lenn ca jur ya noonu la ñu utalee xërëm ya lenn ca jur ya ñu jox leen ci wàll noonu la ñu utalee xërëm yi lenn ca tool ya ñu defal leen ci wàll moo tax mu ne wa jaalu lillahi defal nan yàlla mimma zaraa ca la mu bind gis nga de kon lii nii tooñ bu rëy la tooñ bu rëy gu ñu tooñ yàlla kan moo bind Allah ku sàkk Allah kan moo amal Allah yàlla ñu ñëw ca la yàlla la mu moom nga xam ne moom moo ko defar ñu daal di koy détaillé jox ci ay nit te yàllaa ko moom mimma zara moom yàlla moo ko bind moo ko moom kenn moomu ko ku dul moom waaye ci moom yàlla la mu bind moom ko loolu lañ ko fekk defal ko ci tooñeel jël lenn ne moom yàlla moomatu ko ñoom diw ñoo ko moom ñoom sàmbaa ko moom ñoom dembaa ko moom mu ne fa qaalu ñu ne haza lii lillahi yàllaa ko moom bi zaamihim ci seeni lay lii de la yàlla moom su bëggee na jël bu bëggul lii lañ ko jox waaw fa qaalu ñoom bokkaalekat yooyu ñu réer ñooñu ñu ne haada lii lillaahi moom la yàlla moom bi zaamihim ci seeni lay ndeysaan ca seeni wax ca lañu sos la ñuy askanale yàlla ni lii yàllaa ko moom ndeysaan moo tax réer baaxul wallaahi réer baaxul bi zaamihim ca lañu lay ni li yàllaa ko moom wa haada lii des li shurakaa ina sunu yàlla yi ñoo ko moom ña ñuy bokkaale sunu xërëm yee ko moom xërëm yi nga xam ne moom la ñuy bokkaale ak yàlla ci jaamu giñ koy jaamu ndax lii jaadu na léegi nag waroon nañoo leen laaj ndax yàlla moom sànq ba dañoo wax ne mimma zaraa ca la mu bind la gaa yi jël jox ca xërëm yi kon waroon nañu leen a laaj waaw yéen xërëm yii ngeen di sédd bàmmeel yii ngeen di sédd kilifa yii ngeen di sédd ñoom lan la ñu bind ba ngeen leen di sédd ndeysaan allahu akbar xoola ki nga xam ne dañ koy sédd te deful dara moom bindul sàkkul amul suuf amul asamaan amul taw amul dara yàlla nag moo sàkk asamaan si ah wala نعم moo sàkk suuf si wala moo sàkk nit ñi wala moo sàkk jur yi wala moom moo sàkk tool yi wala kon kooku dëgg-dëgg la mu def war na ci am wàll wala waru ci am wàll amaa xërëm yi nag ak ña ñuy sédd ñoom luñ def lan lañ leen xaajal li ñuy xaajal jël tool bi xaaj ko ci digg bi ne lii yàllaa ko moom wala jël jur gi xaaj ko ci digg bi ne lii xërëm yee ko moom léegi xërëm yi ñoom lan lañ def ba ñuy am wàll yooyu seytaane moo koy def seytaan mooy ñëw ci doomu aadama ba ci doom yi sax ba ci suñu doom yi ñoom dañ leen di désa- détaché moo tax yu bëree bëri yi yi ngeen di gis ñu bëri dañ yaakaar ne hasard la fekk déedéet seytaane moom mooy def loolu moom mooy ñëw ci doomu aadama fexe ba biir pas-pasam mu lëntal ko mu tilimal ko mu yàq pas-pasu doomu aadama bi doomu aadama bi yaakaar ne moom ci lu baax fekk ci lu bon la nekk ñaata ci yéen ngeen dëkkal ay nit yoo xam ne seen xar yi ñu nekk ci kër yi kenn du leen laal yéen ak ñoom yéen a bokk jàkk ñaata ñaata ñaata ngeen bokkal ay nit yoo xamante ne tool bi benn enseignant nee na ma dañoo dem ci benn dëkk nee na dëkk kaw yi soo demee bu towee ba ñu ji ñu dem yàlla di ko sàmm ba mu ñor balaa ñuy lekk dañuy jox xërëm yi lekk ba pare ñu doog a lekk dañuy dem ci mboq yi damm ci yi gën a baax dem ci gerte gi budd yi gën a baax dem ci dugub bi jël li gën a baax daal di koy indil xàmb yi teg سبحان الله
buñ ko tegalee xàmb yi ba pare nag ñoom ñu doog a jëm nag doog a lekk benn enseignant wax na ma loolu te loolu am na ci àll bi tey tool yi buñ ko bayee ba pare balaa ñuy lekk dañ naan nañ dindil wàllu xërëm yi waaw waaw nañ nañ nañ nañ dindi sarax sarax boo xam ne buñ koy dindi dañ ko jox nit fan lañ koy yóbbu ci ay xàmb waa jooju mu ne ma moom imaam la mu ne ma xoolal dama ànd ak waa dëkk bi ñu dem ñu ñu buddi gerte te man leer na ma ne gerte gi bu ñu buddee suñ ñëwee ci dëkk bi dañ koy jox xërëm yi ñu ne ma buddil ma ne buddiwu ma ma bàyyi waa dëkk bi ñoom ñëpp ñu dindi ba pare ba ñu ñëw ba ci xërëm yi ba joxe ba pare ba ñibbi seen kër ku nekk ma dem sa kër ne la indi sama wàll dégg nga lu mu def parce que moom da doon bañ la mu dindi ñu dindiloo ko ci wàllu xërëm yi léegi nag mu ne dindiw ma ba mu bàyyee ba gaa yi dindi ba pare ba jox xërëm yi ba ñibbi seen kër ku nekk commencé mu ñëw ne la sama wàll ndax moom moom ci lu baax li la jël ndax moom joxul benn xërëm kon gis nga même dañuy wax dañuy yaakaar ne yenn saa yi booy booy jàngale Qur'an wala ngay tafsir ngay wax ñu naan la non lii kii kii li muy wax nii mushrikuuna Qurayshi la fekk mushrikuuna Sénégal yii la ndax boo ubbee sa fenêtre seen ñi ngay waxal ñu ngi nii taxaw mbokk yi alquran bi yàlla day wane ne waxu yàlla la li yàlla doon tere démb ak barki démb moom lay tere tey gaa yi ñëw nañ ci li yàlla bind ca la mu sàkk ca la ñuy bay ak jur ya ñu daal di koy xaaj ñaari xaaj fa qaalu ñu ne haada lii lillaahi yàllaa ko moom bi zaamihim ci seeni lay seeni wax wa haada lii li shuraka ina sunuy xërëm a ko moom léegi nag xool leen àtte bi ñu àtte ñu ne fa ma kaana li shurakaihim loo xam ne xërëm yee ko moom fala yasilu ila allah loolu de du dem ci yàlla wa ma kaana lillah lii dem ci yàlla nag foo wa yasilu ila shurakaihim loolu de day yegg ci sunuy xërëm dégg ngeen wax bi ah déggu leen ko de fa ma kaana li shurakaihim su fekkee ne lii xar mu ngand mu duuf mii suñ ko fi bàyyee ba mu dee luy xew fala yasilu ila allah du yegg ca yàlla kon nañ ko jël ñun ñu jëfandikoo ko ñu lekk ndax lii yàlla soxlawu ko ndax sunuy xërëm a ko moom xam nga boobu leer na léegi nag fa ma kaana lillah su fekkee nag lii yàllaa ko moom lu lu ci xel suñ demee ba ñu gis mu xaw a kii rek ñu ne eh foo wa yasilu ila surakaayim lii kat nañ ko jël ñu jëfandikoo ko nañ dem ca xërëm yooyu ñu rey ko fa ndax kat dina baax léegi ana yàlla lu mu moom kon su fekkee yéen xërëm yi li ñu moom xërëm yee ko moom loolu yàlla soxlawu ko léegi nag yàlla li mu moom foo loolu fa huwa yasilu ila suraka est-ce que li acte bu maandu la mooy maye naa sama loxo ndeyjoor waaye loxo càmmoñ baa ngi ci ginnaaw moo koy nangu loolu lañ def loolu mooy bëgg a nax yàlla yàlla de dindil nañ la lenn yaa ko moom waaye nag bu ñu demee ba xaw a kii rek bu ñu ci amee aajo rek moom dañ koy delloo ci xërëm yow ñu nangu ko ci yow waaye amaa xërëm yi nag moom li ñu leen jox ah loolu yàlla yow bëggoo ko bul ko laal moo tax gis ngeen aaya bi sunu borom subhanahu wa taala la mu ko tëjee lu mu wax mu ne saa ama yaxkumuun ñi ñoo bon àtte ndeysaan wallahi ñi ñoo bon àtte saa ñaaw na maa yaxkumuuna la ñu àtte waaw ndax àtte bi maanduwut lu tax àtte bi maanduwut àtte la boo xam ne dëgg-dëgg soo jàngee texte bi nii rek nga bàyyi di nga xam ne lii du àtte bu maandu jël seeni ka- xërëm teg ko ci kaw yàlla loolu lañ def xërëm yi gënal leen yàlla loolu lañ def xërëm yi gënal leen yàlla mooy ñun li ñuy def tey fii ay xërëm gënal ñu yàlla suñ la nee li la yàlla wax li la yonent wax nga ne waaye lii la fi mag ñëpp lii lañ fi fekk li- kon liñ fi fekk dañ koy def ana ana ana sunu diine lan la diine di jëriñ lan la yàlla di jëriñ tey mbokk yi ayna allah loolu omar doon wax ah abdullah ibn omar waxoon sàmmkat bi waxoon abdullah ibn omar qaala ra'i ayna allah abdullah ibn omar fekk sàmmkat ba ca àll ba muy sàmm yor ay gàttam mu ne ko ñun de dañoo xiif doo ñu jaay benn xar ñu lekk mu ne ko moom ma ko mu ne boo demee nga ni ki ko moom till yi ñoo ko fàdd ñoo ko rey sàmmkat bi ne abdullah ibn omar ayna allah ana yàlla Abdoulaye ibn Umar téye sikkim bi di wundeelu du yuuxu naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla loolu moo ñu manqué tey Sénégal ana yàlla ana yàlla mbokk yi lépp lu ñuy def ay xërëm la lépp lu ñuy def xërëm la xërëm la bañ nañu lànk maanaam lépp lu ñuy def rek foog nga def ci musiba ci lépp nag bu ñuy tudd bu ñuy takk bu ñu amee dëj lépp lu ñuy def musiba la lépp lépp wallahi alazim mardi da benn dëj laa dem Louga dëj bi dem naa fa ba mu jeex kenn defu fa diine kenn defu fa sunna jullee gi ba ci armeel yi ba ba ñuy sulwaa ji ñaan yi ba ba ñuy ñibbisi gisuma fa sunna kenn dégguma fa sax benn baatu sunna léegi bu léegi la keneen doon jàngale la ñuy def li keneen wax waaw waa ji de ci tarixa sàngam la bokkoon kon nañ ko defal nàngam balaa muy bokk ci tarixa fan la nekk lu mu nekkoon ah jullit léegi nit ñi dañuy fàtte ne ñoom ay jullit lañ balaa tarixa yi ndeysaan léegi nag kon tarixa sàngam la bokk kenn du def lu jullit di doon def lan la ñuy def li tarixa bi doon def rek nañ ko defal li tarixa bi ndax moom tarixa sàngam la bokkoon acca tarixa bi lii la wax nañ def loolu li yàlla wax ak yonent nag hmm? moo tax bokk tarixa wóorul de wóorul ndax da lay génne ci li yàlla wax ak yonent wóorul de wóorul ndax da lay bàyyi loolu yàlla ak yonent bi wax soo dee nit ñi dañuy ñëw ne ah tarixa sàngam la nekkoon de au lieu ñu ne jullit la woon léegi dañu naan tarixa sàngam la nekkoon léegi nag waa tarixa boobu ñoom ñoo lay jël di la defal li tarixa bi bëgg su fekkee waa tarixa boobu xamuñu alxuraan ak sunna nag ndeysaan wala waa ji bi ñu ko suulee ba pare ba gaa yi yuuxu yuuxu seen yuuxu yooyu ñuy yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu ba yuuxu yi jeex ñu ne diw anamu mu ne maa ngi ñu ne dóoral benn ñu wax tur bi diw anamu ñu ne mu ne maa ngi ñu ne dóoral benn bëggumaa egg nag ci wax yi wax feer yooyu waaw léegi nag mooy as ñu ngi koy assurer quoi assurance diw ana nga mu ne maa ngi ñu ne dóoral benn kii ñu wax affaire boobu diw ana mu ne maa ngi ñu ne dóoral benn ñu daal di dóor dóoral benn ci ay armeel ah ay armeel dañ fay dóor dara ndek bu ngeen paree da ngeen dem fële ngeen kiyal ko dem leen ca jàkka ja ña am ndigal ci nangam dañ dem jàkka ja def loolu ah ndeke diine bi am na lu am nit am ndigal ak nit lu am ndigal yenn saa yi ngeen ñu ne jàngal nangam ñu ne est ce que am nga ci ndigal defal nangam ñu ne est ce que yow am nga ci ndigal ma defe ne diine bi yëpp ndigal la est ce que julli war na jot nga toog naan damay xaar ndigal koor war na jot nga naan damay xaar ndigal déedéet sant nañ la ko jeex na ba nga mesurer lañ la ko sant ki ki la war a jox ndigal moog yàlla ku ëpp doole kuy sa borom ku la sàkk kon dëgg dëgg dëgg borom bi mu ne wa kazalika naka nii zayyana la taarale li kasirin lu bari minal mushrikina ci bokkaalekat yi qatla awlaadihim ci rey seeni doom sax dégg nga de noonu ñu xaajee mbay mi noonu ñu xaajee jur gi noonu ñu indee atte yu ñaaw jëmale ko ci yàlla noonu la seytaane taarale bokkaalekat yi di rey seeni doom xat la rey awlaadihim seeni doom shurakaahum ndax di leen dendale ak yàlla di leen bokkaale waaw ndeysaan di def ay sacrifice da ngay gis koo xam ne tey doomam la def sacrifice pour mu am alal waaw da ngay dégg ci Sénégal ñu ne diw man xamoon naa ay nit yoo xamante ne ndeysaan boo leen déggee ñu ne kooku dafa sacrifier doomam doom bu tudd nangam waaw doom ji nangam la tuddoon mu sacrifier ko même yéen seen koñ maa ngi fay dégg ku sacrifier jabaram am na benn waaye bu ñu fay tuumaal ne dafa sacrifier jabaram su ma la toppee tuuti rek léegi nga xam kan la daa tukki woon ànd ak jabar ji jabar ji dee foofu ñu ne da koo sacrifier ñibbisi ah ah ah waaw gis nga ñu ngi koy wax de ah dégg nga mu ngoog mu ngoog gis nga da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy sacrifier dara pour am dara pour dara pour dara seen doom ñenn ñi seen i cër sax la ñuy sacrifier da ngay gis kilifa boo xam ne amul baaraam amul baaraam sànqalañ bi wala ci tànk bi wala ci loxo bi ah def ay sacrifice am na ci jigéen ñi benn benn benn galañ bu ñuy takk galañ boobu boo ko takkee da ngay rek liir foo dugg liir nekk fa day dee te ñu naan ko we bi we foo dugg da ngay rey ay nit soo ci reyee nangam nga am alal loolu ko nit di doy am na ci ñoo xam ne gàllaaj yiñ takk jigéenu biir bu ñu dendal biir bi day yàqu ndax ay sacrifice am na ci ñoo xam ne gàllaaj yi ñu takk ku leen joxoñ rek dee loolu lu ko doomu aadama di dooyee di rey ay nit boo demee ci yàlla looy wax wala dañoo yaakaar ne dundee waaye loolu yëpp lan la dégg nga aaya bi lu mu la wax mooy lan zayyana li kasirin min al musrikin ah seytaan mooy taaralal lu bëri ci bokkaalekat yi qatala awlaadihim ci rey seeni doom surakaahum ngir bokkaale leen ndeysaan ngir bokkaale yàlla tabaraka wa taala ngir lan ngir am poñetu àdduna ngir am yenn daraja ngir am yenn martaba ngir am yenn am am ngir làq koom tuuti ci àdduna tax ngay rey ay nit di takk gàllaaj yoo xam ne ku la gis dee jigéen bu la gis biiram yàqu ah la hawla wala quwwata ñu ne président Senghor bi muy campagne ci jamonoom dafa dem benn dëkk bi mu yegsee rek ñu teru ko dugal ko ci benn kër guddi jot mu woo borom kër gi mu ne ko fan mooy suñu appartement mu ne ko fii mu ne ko bu fi jigéen ñëw guddi dama nga wax jigéen ñi bu fi kenn ñëw guddi borom kër gi ne waaw wala borom kër gi dem wax ko jigéen ñi mu mu toog xaw ma da ko fàtte xaw ma mu toog wala yàlla yàllaa ko natt Senghor génn rek dugg ci toilette bi génnaat rek dajeeg jabaru borom kër gi mu yanu boolu reer bi di koy indi rek mu yuuxu waa ji ne waa ji ne ko lan la mu ne waxuma la woon jigéen bu mu fi ñëw waa ji ne eh mu ne ko dootul am doom mu ne kii dootul am doom xam nga lu tax gàllaaj ji mu tàkk la dootul am doom loolu gàllaaj yooyu ba léegi nit ñaa ngi koy indi yor ko fi ci biir dëkk bi waaw ak xërëm yu mel noonu waaw lii boo koy sang xaaju guddi ngay jóg bu la kenn gis ndax ku la gis day dee wala ku la gis nangam wala ku la gis mbiram day yàq nga gis doomu aadama yi jël loolu indi ko ci biir dëkk bi lu tax ndax bokkaale yàlla tabaraka wa taala ndax poñetu àdduna ndax ndomba tànk lan moo tax ngeen gis gaa yi dem ci armée li di sulli néew yi lan ngeen foog lan la
dina am alal bëgg a dugg àjjana dina am alal dama leen laaj ndax bëgg a dugg àjjana mu ne gaa yi di sulli néew yi lan la dërëm ah ah loolu àdduna ak ndomba tànk loolu kese la amul dara ndomba tànk daraja ak lan alal kese moo tax ñuy sulli néew yi mais amul leneen xërëm yi ngeen di gis ci biir dëkk bi lan moo tax ñu koy def sacrifice yi ngeen di gis su élection yi jotee campagne jotee ay nit di réer ñuy rey ay nit di sàcc ay puune xoolal lu toll ne président daal di ne diw wax naa yaayam na bàyyi puune yi muy rey wala déggu leen loolu dégg ngeen ko wala déggu leen ko am na fi président bu ne diw mooy moo rek mooy rey puune yi puune yi moom moo leen di rey wax naa yaayam na bàyyi puune yi muy rey loolu ci njiitum réew ñun ban àdduna lañ nekk sunu borom subhanahu wa taala mu ne lan moo tax ñuy def loolu li yurduhum ndeysaan ngir ñu alag leen li yurduhum ngir ñu sànk leen li yuhlikuhum wa li yalbisu alayhim diinahum ngir ñu lëntal leen seen diini waaw gis nga de ngir ñu jaxase diine ji lëntal ko réeral ko ba jullit ñi fi ñu war a teg seen tànk diine jooju daal di lëndëm kenn dootul xam looy def li yàlla rek moo ko ñeme wax wala yulbisu alayhim ngir ñu jaxase leen diinahum seen diine loolu yëpp nag lu ko waral mbokk jullit yi mooy jàpp ne lii kat ñuy def doomu aadama mën na koo def fekk doomu aadama bi li muy def li mu war a def rek mooy lu tegu ci yàlla nee na yonent bi nee na ndax loo def lu dul loolu ëllëg yowmal xiyaam doo am lay ci kanamu yàlla tabaraka wa taala rawatina nag yàlla nee na loolu dañ koy def ngir jaxase diine nit ñi borom bi ne walaw sha allah su neexoon yàlla maa faaluhu duñ ko def waaw waaw bu neexoon yàlla yàlla musal leen waaye yàlla moo leen bàyyi ci maandu teem ci coobareem ci maandu te moom yàlla moom buur bu maandu la comme ñoom ñoo tànn yoon woowu yàlla seetaan leen ñu daal di sànku waaw yàlla buur bu maandu la daf laa may ay jumtukaay yooyu utiliser yooyu xalaate lii baax na wala baaxul lii war naa ko def wala war moo ko def mu yónni ci yow ay yonent wàcce téere xamal la lii baaxul bi nga demee ba xam ne baaxul nag boo jaaree ci yoon woowu yàlla seetaan la nga daal di àlko ana mu ne walaw sha allah su neexul woon yàlla maa faaluuhu duñ ko def kon fa zarhum bàyyi leen wa ma yaftaruun ak la ñuy sosal yàlla tabaraka wa taala ba ñu dee dajeek moom yàlla daal di koy lijjanti ak ñoom fa zarhum yow muhammad bàyyil gaa yi rek seetaan leen rek wa ma yaftaruuna ak seeni fen ak la ñuy sos waaw soo gisee ñu def lii nangam ñun nii ñun lee waaw allahu akbar fekk loolu yëpp ay feni kese la ak ay sos yu ñuy sosal yàlla fekk yàlla yoonalu ci dara ëllëg yowmal xiyaam lépp la ñu sosal yàlla tabaraka wa taala lépp luñ ko duural lépp loo xam ne def nañ ko yàlla subhanahu wa taala dina ko teewal ci seeni kanam atte leen ndax yàq diine ji rek moo tax ñu jóg kon mbokk jullit yi ñaari aay yi ñooy sunu dars tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su amee ay laaj